ñu leen di nuyu bu baax ñëw nag ak yéen ci naqare bi nga xam ne moom moo ñu dal dal suñu kaw rawatina ñi nga xam ne ñoom ñooy def làmb di génn àdduna suñu bàyyi Salif Mbeng ñu gën ko xam ci Gaston Mbeng ñi ñu toog nag yàgg nañ lool ak ki nga xam ne moo génn àdduna da leen di bàyyi rek ginnaaw jaal bi ñu def témoignage ci ki nga xam ne moo dem kilifa gi ñu ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay ziar baax baax a baax Ahmed ñu ngi lay ziar mm-hmm. euh, maa ngi nuyu seen télé di nuyu waa réew mi di jaale waa réew di wax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñàkk nañ ko baax ñàkk nañ koo xam ne euh, Sénégal rek ko ñor waaye ñàkk nañ ko bëgg lu baax te bëgg njaboot fonk nitam ñàkk nañ ko dëggu ñàkk nañ koo xam ni wax naa la léegi ne de wundam sax du xiif bëgg njaboot ñeme dépense ñeme njël man dama ko liggéeyal Gaston Mbengue le 28 la lay fay balaa saw ñàkk di fer fay la sa xaalis mm-hmm. lambam yu mujj yi mu tëgg yëpp man maa nekk lëm ñu ko central mais balaa may génn ci làmb ci balaa ñoo spécial bi bu jeex mm-hmm. balaa grand combat bi taxaw ñu fay ma sama xaalis du lekk ñàkku jàmbur dëggu ñàkki jaaxal dañu ñaan yàlla ci barke yonent bi yàlla ko yàlla xare àjjana makan yàlla may ko xolam ak rakam yi nga xam macha allah ñoo topp ci moom ñoom Pap Xaali Asan ma anta ku lim da ñun xam naa ni euh, am na loolu naqari mais kenn ku nekk mën na ko jaal sa morom parce que Sénégal ñun ñëpp ko bokk te Sénégal benn bopp la ku xam na ni lu waay sori sori sori bëgg nga Gaston Mbengue waaye bàyyi nga ko xel parce que donte la benn bis mas na la ko bégal je parle rek de manière générale. seeti naa ko. bu ñu mujjee gisante ma ak moom euh, ñëw naa fi bi makkan di ngénte gannaaw bi ma ko seetsee miraaraan sax mais ñëw naa fi makkan di ngénte kaddu yi mujjee weccante ko ma ak moom li ma wax mooy maa ngi leen di dégg ajar day marew bëggul maanaam bruit parce que yaramam dafay dafay dafay dafay daw waaye maa ngi sant yàlla baax maa ngi tane xool leen loo xamante ne si ni ñi laaj na ko gen def ko man bu ma leen teree def seen yëf lii la ma mujjee wax waaye ñëwaat naa fi seet si ko ko du gàtt daal euh, ku baax nit ku social nit koo xam ni tey dëgg fu mu ko fekk fa la koy baax dëgg fu mu fekk Gaston Xali koy bàyyi man nag yàlla moo dogaloon nekk sama xarit di sama papa wax dëgg fa yàlla terangam terangam fii réew mi bari na ñoo xam mënu ko waat waaye rawatina ñun ñi ñu nekk ci ndam rawatina ñun ñi xam ne ñoo bokk ci structure bi Gaston Production ñu ngi ñaan yàlla daal yàlla ko yàlla xaraa jana bàyyi la ak papa Ndiaye ay dem jërëjëf ñu ngi la koy jàll yow kilifa gi ñu ngi lay nuyu bu baax di la masawu di la jàll di ñu bokk di suñu papa Gaston Mbengue ñu bëggoon rek nga euh, indil ñu ay témoignage ci ki nga xam ne moom moo dem tey. asalaamaaleykum ñu ngi sant yàlla bu baax di wax ni Gaston Mbengue moom ku ne mën nga koo jàll sa borom fii ci réew mi ak ci bitim réew mhm. ndax nit koo xamante ni la ku bëgg lu baax la. bëgg baax lu bëgg lu baax loolu rek seede la mhm. liñ ciy teg mooy ku ñeme dëgg la mhm. liñ ciy teg mooy kuy jàmbaar la liñ ci teg mooy mhm. ku am yërmande ci nit la ku mën a dimbale waate la ku mën nitam la yàlla dafa def ni làmb ji bépp mbër bu fi nekk di fayeeku ay million tey ginnaaw yàlla ak yonent bi war nga koo sante Gaston Mbengue ndax man sama dama mënta wax waaye xam naa ni daal ku dëggu la man li may neex ci nit mooy ku dëggu koo xamante ni loo bëgg a wax ku nit defee safaan nga toog ni ko li nga def jaaduwul mm-hmm. jël sa alal sa ñaq di ci dimbuli ay doomu aadama yaatal làmb ji ndax làmb ji ni ko sëriñ waxee rek amul kenn koo xamante ni dooni lekkuma ñàkku mhm. Gaston Mbengue mhm. parce que maam ak seeni maam la woon mhm. waaye nag moom ku xam loolu la vraiment vraiment tey moom wax dëgg yàlla Sénégal ñàkk na mais ñun ñii am na lu ñu naqari li ñu naqari lañu am as gor dem na as dem na garmi dem na jàmbaar dem na koo xamante ni wallahi la azim barki alquranu karim ñeme dëgg ñeme dëgg ñeme di wax dëgg di dox ci dëgg dem na ñaan daal yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana yi gën a kawe yi gën a gën a kawe mook ñim fa fekk ndax àdduna nii la rek demal maa ngi ñëw bu fekkoon jàmbaar mooy tax nit du dem Gaston mën naa waat kaamil ni du dem bu doon dëggu mooy tax nit du dem mun naa waat si yàlla ni Gaston Xaali Mbeng du dem waaye nag bu yàlla bëggee ku bëgg ñàkk yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla yërëm vraiment ñu koy jaal monde làmb di ko jaal àdduna di ko jaal makar mbeng mi nga xamante ni moom vraiment ñàkk na di ñaan yàlla yàlla sàmmal mbeng vraiment moom njaboot gi yëpp moom njaboot gi yëpp yàlla ko yàlla yërëm Gaston xaali Mbeek yàlla ko yàlla yërëm xaare ko àjjana man daal li ma ci gën a neex daal ci moom hmm. mooy dëggu yi waaw moom dafa dëggu hmm. dëgg piir dafa dëggu nit ku dëggu la te loolu mooy doomu aadama jërëjëf

diggante ki nga xam ne moom mooy euh, Gaston ak la famille euh, Baye Alé Ndiaye relation bi mu amoon ak ki nga xam ne moom mooy euh, suñu papa jooju nga xam ne moom itam dem na. Mm-hmm. tey Gaston daal di ko fekk mu nekk nag bés yu bés bés bu doy waar. bés boo xam ne itam yaa ngi koy wax sànq. Mm-hmm. ñuy di faral di amal li nga xam ne moom mooy làmbu. seen bés ni muy ni muy demee mm-hmm. yàlla nag moom moom bu soxlaa ñëppay ñëppay ñàkk ñàkk naam feebar bi ko daaneel yàgg na lool dégg nga témoignage yi nga xam ne itam daal dinañu koy wax mu nekkoon nit koo xam ni kenn du toog ci peggam di jo kenn mu nekkoon nit koo xam ni de loin mm-hmm. li ñuy faral di wax moom mooy euh, ku fermé la ku metti la ku metti mm-hmm. alors que au fond mi ngi noonu génn na àdduna ñu ngi koy ñaanal bu baax yàlla yéen ko defal ko jàmm jéggal ko ay bàkkaaram ñu ngi fi bari ñu ngi fi bàyyi mu bëreet mu ne yàlla kàttanal ko teg loxo gis na mbooloo mi ñu ngi jógee fu nekk. fu nekk la ñu jógee di ñëw di ñëw lu mu guddi guddi ba ñu liggéey bi la nouvelle bu naqari lool mhm. bàyyi nañ seet di yitte ñëw fi nga xam ne moom mooy ci kër gi ànd koog euh, makkan mhm. ànd koog itam ñeneen ñi nga xam ne ñoo bokk ci fan nañ Aline mhm. relation nga xam ne amoon na ko ak euh, ki dem di euh, Gaston Mbengue ñu ko ñaanal bu baax ko taxaar ko amiin amiin jéggal ko doon li nga xam ne nii du am solo sànq yaa ngi wax léegi si témoignage yi nga xam ne nii am na si diggante Aziz Ndiaye ak ki nga xam ne mooy Gaston yàggul dara dégg na kii di Aziz Ndiaye toog di wax Sénégal yëpp ñun ñaar ci relation yu am nee na moom confiance bi nga xam ni am na ko ci kii dem na sax ba di ko wax sax Gaston mais suñu papa la ko doon wax ça veut dire que am na rôle bu am solo bi nga xam ne Gaston moo ko doon gis si ñoom Aziz Ndiaye ak li ñu demee noonu mu doon li nga xam ne nii lu am solo la.